asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 ni ñu euh, baaxoo di ànd ak yéen ajuma ju jot lu ko dalee juróom benn waxtu ba juróom-ñaar 18h jàpp 19h tey ñu am mbégte di dalal ki nga xam ne moom mooy Cheikh Tidiane Mbaye mu ngi nekk praticien xam-xamam màcc ci pajum wolof mu ngi bokk i tamit ci association bi nga xam ne moom mooy association des tradipraticiens du département de du de Nioro du Rip kon ANT tey ñu am mbégte bu baax a baax di ko dalal ci sunu émission fas yéene waxtaan ak moom ci ay thèmes yoo xam ne yu am solo la waaye balaa ñuy euh, yegg foofu dañu koy may rek euh, moom Cheikh Tidiane Mbaye mu daal di nuyoo ak euh, mbokki auditeurs yi. alhamdulilah wal abdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah soxna Alima Diallo maa ngi lay nuyu di nuyu waa réew mi FM yëpp. waaye di jiital ci nuyoo bi kilifa ak rajo bi muy Seydi Mbagnick Diop mm. di ko ñaanal yàlla rajom bi suñ borom taxawu ko ba fépp fu mu éene rajo bi àgg fa suñ borom àggale ko fa mm-hmm. waaye di nuyu waa rajo bi yëpp mboolem personnel boo fa nekk rek maa ngi lay nuyu mm-hmm. di nuyu ñuy déglu ci réew mi ak ci bitim réew mm. di wax ñëpp daal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mm. ñu lay jaajëfal bu baax a baax kon sëñ bi Mbaye euh, di rafetlu yi tamit disponibilité bi ak euh, wuy si nga xam ne wuy si nga ko rajo bi ci sunu émission SOS santé comme ni ma ko waxee rek te dañuy waxtaan ci euh, ay sujets yu am solo muy ay feebar yoo xam ne danoo sonal askan wi benn bi nekk ndoxum siti beneen bi nekk hémorroïde donc ku ko dégg tey rek sujet bi day nekk lu lay intéressé ndax dal na daanaka ku ne nga xam ko ñàkk koo xam Euh, mais balaa loolu euh, sëñ bi Mbaye dañuy wax Cheikh Tidiane Mbaye kañ la tàmmali li nga xam ne moom mooy wàllum wàllum paj ak naka la ci duggee. waaw jërëjëf euh, ni ma ci duggee mooy ndono. ak jàng. Mm-hmm. ndax fa ma dëkk ci Saloum. Mm-hmm. muy Medina Serigne mbay góor ga fa nekkoon ku nekk xam na ne. yàlla mayoon na ko xam-xam bu yaatu mais surtout wàllu faj mm-hmm. muy góor gi sëriñ mbay di suma waajur yàlla dafa dogal bi ma jàngee xam-xam xam-xamu diine ba pare jàng arab ba am bac yàlla dafa dogal en 2000 ma dem toog ci wetam fekk boobu xaw na magee may ànd ak moom di ko jàppale ci liggéey bi mu di ma jàngal wàllu faj mm-hmm. li ko commencé 2000 ba 2004 mu génn àdduna Mm-hmm. bi mu génnee àdduna nag xam-xam bi mu ngi ci man wante commencé gu ma ko mm-hmm. fa bi ñu demee nag ba 2010 may gis léeg-léeg kenn koo xam ne yenn jàngoro yi dañ koy sonal lool su ko defee rek ma am lu ma ko baaxee su ma ko ko baaxee rek yàlla def ci barke mu wér rek mu indil ma keneen mm-hmm. kon faj bi ginnaaw bu ñu ko donnee ba pare mu nekk ci sunu deret yàlla dafa dogal itam ñu jàng ko ba am ci ndigal mhm. commencé di faj fa tabarakallahu xam-xam boobu nag dafa nekk xam-xamu cosaan mhm. xam-xamu cosaan nag suñ borom daf koy jagleel jaam bi soo gisee ñuy wax fajum cosaan depuis yonent yi yonent yàlla aadama bi ma wàccee ba léegi fajum cosaan mu ngi ci àdduna mhm. kon yàgg na fi bu nu xoolee yonent yàlla isaa bokk na ci li mu waxoon bënu Israël ne leen yàlla moo ma yónni ci yéen yonentu laa gan mais nag yàlla may na ma xam-xamu faj mm-hmm. gaa ñu ne ko ah war ñu preuve bu wane ne yow mën nga faj mu ne indil leen ma malaat yi nga xam ne fajkatu docteur yi jamono bi tënaleen ma faj leen loolu mooy xam-xamu cosaan ndax bu ñu fàtte ne xam-xam dafa am ñaar dafa am mm-hmm. alama bil qalami ak alamal insana malam yaalam dafa am xam-xam boo xam ne dañu koy jàng ci téere ak bic mm-hmm. mu dugg ci sa bopp am xam-xam boo xam ne nag day topp par cosaan xam-xam bii nag ñun ñuy faje yàlla dimbali nañu ci ñaari wàll bii dañu ko jàng xam ko lool bii nag toppee ñu ci cosaan ñu am ci ndigal di ko def mm-hmm. loolu mooy li nga xam ne ñëwee na ko ci ñun mm-hmm. ak date bi nga xam ne commencé neen di ko fajee soxna si. Mhm. mu nekk kon li nga xam ne euh, wax nga ko ndono la waaye tamit yemoo ci ndono bi da nga dem aussi nga dem jàngi ko mu nekk lu am solo ndax tey jii nit ki di nga am base mais nga renforcer ko euh, tey ci wàllu jàng boobu est-ce que am na ay réew yoo xam ne jot nga fa dem ngir gën fa taataan parce que gis nañ ne li di médecine traditionnel am na ay réew yoo xam ne euh, dafa am doole bu baax est-ce que jot nga tànk ci xam-xam yooyu. Euh, jërëjëf soxna si Diallo xam nga erreur yëpp mooy bañ a topp xam-xam. Mhm. te garab yi ñuy faje fii ci suñu dëkk bi ak suñu réew néew nañu gis ko ci beneen réew. Mhm. man dem naa dëkki tubaab yu bare bari bari. Mhm. ci Europe. wante damay faral man dama bëgg àll. dinay faral di dox ci seen àll yi waaye sunu garabu ngeer sax dëkk yi ma dem ci Europe mosuma ko fa gis. waaw ki xamul garab sànkam nag mënu la ci jàngal xam-xam mm-hmm. kon man ci Sénégal laa jàngee xam-xamu faj ci Saalum laa ko jàngee ci suma jur laa ko jànge te arab day wax ne lay laysal xabaru kal iyaan mbooleem xam-xam yi xam-xamu gis naa dégg naa fekke naa moo ci gën a wér mm-hmm. ki nga xam ne danga daan fekkee sa waayjur ñu indil ko malaat ngay gis mu di ko terete mu di ko terete mu di ko terete ci àll bi ci garab yi nga dëkkal ba koo ko wér mm-hmm. kooko yaakaar naa ne amut looy njëggaani feneen ci wàllu faj bi mm-hmm. loolu moo tax ñun génnuñu senegal génnuñu Saalum mm-hmm. fa tabaarakallaahu nag soo gisee ñu naan war nga uti war nga uti lii coow li bari ci lépp ñàkk topp xam-xam rek ndax dañuy wax ne al ilmu huwa imam Euh, xam-xam mooy jiite lu ñu laaj xam-xam mais xel du ci jiitu fépp fu ñu war a jiital xam-xam boo fa jiitalee xel rek wàcc nga yoon bi yàqu-yàqu dafay ñëw mm-hmm. kon faj dafa nekk loo xam ne dafa laaj xam-xam waaye bul em ci xam-xamu njàng rek boole ko xam-xamu ndono mm-hmm. ndax xam-xamu njàng da ngay dem ba ci kanam mu jeex su boobaa nag boo amul xam-xamu ndono bu ñëw soto niir ko sukkaliku dimbale ko rek su boobaa da ngay réer. Mm. ci biir faj bi. loolu moo tax képp kuy faj faju cosaan wara nga ko jàng xam ko lool mais nga boole ko xam-xamu bopp muy xam-xamu cosaan soxna si jàll. Euh, ci ci loolu euh, sëñ bi euh, gay mbay dañ ci war a taxaw parce que seen métier bi ngeen di def mooy wàllum pajum wolof dafa nekk lu noble. nit baax nga faj ko dafa nekk lu noble mais bëri na ci aussi loo xamante ne ay yàq la ba tax na tey jii de plus en plus nit ñi ñu ngi ŋaññ métier tradipraticien ndax yàq yàqkat yooyu nga xam ne ñoom ñu nekk ci biir tey jii yow lan nga ñu mën a wax ci ci mbir moomu ndax am na si ñoo xam ne euh, maanaam kaweeluñu métier bi. waaw jërëjëf ñi ko kaweelul rek ñooy ñi ko suufeel mhm. te mooy ñi nga xam ne. duggee wuñu ci xam-xam waaye dañ ci dugge ut àdduna te xam-xamu cosaan dafa nekk loo xam ne ndono la lu jóge ci yonent yi alayhim salaatu wasalaam mm-hmm. cosaan boo xoolee ñaare li muy faj tubaab munu ko faj fajit tubaab bi tam li muy faj cosaan munu ko faj ndax yàlla mooy sedd séddalee noona ba tax na faj bu manti doon xam nga ni mu amee sax ci fajum cosaan mi noonu la amee ci wàll yépp wàll woo dem rek coow li mu nga fa xam nga ñu ko waral mhm. dañuy wax ne coow li ci teen bi ñi amul mhm. a ko waral coow li ci fajum cosaan bi ñi amul xam-xama ko waral beneen wàll woo dem itam coow la ca nekk ña ko xamul ñoo ko waral mhm. waaye mbir mi ni mu noobulee muy fajum cosaan ndax dund ci xam-xam dafa neex tey bu la yàlla mayee xam-xamu faj faj bi nga faj malaat bi mu ne la tane naa rek yemul ak dara ci àdduna plaisir bu mag nga yëg dangay ngay kontaan lool ci malaat bi la ne tane na ndax yonent yàlla Isaa alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee wax euh, banu Israil ne leen yaa bani Israila inni rasulullahi ilaykum suñ borom nee ne ginnaaw bi mu doone yonantu ba pare am na xam ñaari xam-xam yu ma ko xamal mm. wa yuallimuhul alkitaaba wal xikmata wa tawraata wal injila wa rasulan ila bani israil xam nga lu mu wax waa banu israil mm. annii qad jitukum bi ayatin indil naa leen kéemtaan de min rabbikum bu jógee ci seen borom kon nga gis ne fajum cosaan eh, kéemtaan la bu jógee ci sunu borom bokk na ci kéemtaan yi mu leen wax ne leen man damay jël benn picc tibb ci suuf si su su ma ëfee suuf si rek mhm. dafay nekk benn picc di naaw ñu ne ko benn ngóob mu ne leen fi ngeen may gis nii dinaa fekk ku dee bu yàgg ma dekkal ko loolu loolu loolu tradipraticiens yi mënuñu ko mhm. mu ne leen bokk na ci li ma yàlla may sëlmaxa boo xam ne da koo judduwaale mun naa ko xooloo kooku faju cosaan mënagu ko mu ne leen bokk na ci damay faj wal abras muy siti nga xam ni mooy jur hémorroïde mu ne leen kooku bokk na ci li ma yàlla may ma di ko faj kon boo xoolee fajum cosaan noobul la méccim yonantu la yonent yàlla Muusaa ku mënoon faj la am na bés tegtal na benn waaye na ko utal ma benn renu sàngam ma jëfandikoo ko bi muy jëlee ren boobu jëfandikoo ko wér na gan mhm. waaye suñu borom daf ko ne boo toppee faj bi yow risaala gi dafay tardé yow joxuma leen ndigal ci faj waaye yonent bu mos a ñëw rek xam-xamu faj mu ngi woon ci yow ba tax na yonent yàlla isaa moomu ku fesoon la ci wàllu faj faj boobu ndax bu ñu fàtte ne al ulamaau warasatul anbiya yi mbooleem borom xam-xami diine yi te xam-xam wax naa la ne ñaar la xam-xamu téere ak xam-xam boo xam ne suñ borom moo la koy baaxee mu toppee la ci cosaan alama bil xalami alamal insaana maalam yaalam am na loo xam ne ni jaam bi la ak boromam mbiru ndono la fa tabarakallaahu xam-xam boobu jóge ci aadama di ñëw di ñëw di ñëw ba ci boroom xam-xami jamono bi nga xam ne nii moo topp ci ginnaaw yonent bi mboolem fajkat boo fi gis te mu am xam-xam bi war rek kooku ndono la ci yonent yi jiitu mm-hmm. kon fajum cosaan méccem nobul la waaye dafa laaj xam-xam bu mat sëkk zahir ak baatin loolu mooy xam-xamu cosaan. ñu gis ne léegi comme ni nga koy waxee bëri na ay nit ci ñoo xam ne danga leen di gis des fois ci télé yeeg fu ne ñoom ñoo gën a fës mais des fois day nekk xam boo xamante ne du am fu mu egg mais sauf que dañuy gën a fës rek mu nekk mbir moo xamante ne tamit lu lu xaw a doy waax la. waaw jërëjëf eh, xam nga mbir mu nekk buñ ko doon natt ci xam-xam defe naa ne bari na koy toog ci palaas sax ñu ne ko mérito woo ko mhm. ndax métier la moo xam ne kenn ku ci nekk waroon nañ la yéen journaliste yi waroon ngeen di gëstu kenn ku nekk mhm. fi mu adressé wu ba fa mu dëkk mhm. def yitte ba fa mu dëkk ñu ne leen waaw diw sàngam xam-xam bi fan la ko jëlee parce que nit ku nekk li nga jàng benn kala ko jàngal bu dee itam ay njabootam ñu nga fa wala ñu ko mën a seere su ko defee ñu gëstu laa gëstu ba gis ne yow mérito nga faj ñu bàyyi la ngay faj su ñu gisee ni mérito woo faj ñu ne la bàyyil faj mi nga dem uti ci xam bi du dëgg mm. su boobaa bu ñu ko defoon rek ndax santé du caaxaan yonent bi sallallahu alayhi dafay wax ni bu leen di foowee santé nit ku ci sa xam-xam màccul demal nga jàngi ko kon bu fekkee dugg nga ci faj sa xam màccewu man mënuma d'accord ñu ne yaa ngi faj fajum cosaan te xàmmewoo garab yi ku la yóbboon ci àll bi xàmmewoo guy daqaar ak ngeer yow daal ñu ngi buub garab yi rek la indil ngay joxe xamuloo garab bi. benn saay dañuy def seeni i mélange def ko ci benn bouteille ku ñëw ñu jox la ko. waaw xam nga mélange boobu bu tegoo ci xam-xam mën na faj ndax itam nag eh, loo réeree lu nekk rek am na ko ko xam dañuy wax ne wa fawqa kulli si ilmin alimun mm. ki jaxase ay garabam ci benn butéel su fekkente ni xam-xam la ci jiital d'accord naa ak moom. Mm-hmm. man li mais day fekk ne yenn saay dañuy ñëw jox ko Demba jox ma sàmba jox keneen ak keneen fekk ne ñooñu bokkuñu. <laughs> waaw jërëjëf xam nga loolu ah. am na. Mm-hmm. mais loolu nit ñi dañ koo teg ci xel. Mm-hmm. ndax jullit bu nekk mën nga war ngaa mun a gëm ne yàlla kenn la. te mu ngi dundal ñëpp. mu ngi musal ñëpp mu ngi wërsëg xam nga yàlla dafa yaatu yaatu koo xam ne ak xam dafa yaatu yaatu boo xam ne bokk la xel damay wax toujours ma ne léeg-léeg nit ñi ne waaw diw daf ma nax ma ne leen borom xam-xam du naxe borom xel mu rëy mooy naxe kër boo gis ci xel la ko teg mais borom xam-xam xam-xam moo koy kondir mm-hmm. munul def lenn lu wutee xam-xam bu jëlee garab bi xam-xam moo ko naan jëlal bi bu la ne yow nangam moo la daal xam-xam moo ko ko wax bu la ne nii xam-xam lu mu la wax rek xam-xam moo ko wax parce que moom mënul def lu uutee xam-xam dafa lekk léppam xam nga nu mel fi ñu toll nii man soo doon làkk arab xam-xamu grammaire bi ci man mu naan ma waaw ah, ah, normal na li mu wax normal na soo wàccee yoon mu ne ma noo wàcc na yoon kasaalika beneen xam-xamu faj itam noonu la mel mm-hmm. am na ci malade yoo xam ne bu ñu ñëwee jege la rek liñ lay xeeñ rek moo lay xamal na la kii feebaru sàngam moo nekk ci moom mm-hmm. waaw doo wax sax soo ñëwee toog rek sa xeeñ bi ngay xeeñ yow sax du la xeeñ mais fajkat bi am xam bi ak expérience mm-hmm. soo ko jegee rek xeeñ bi rek wala mu xool sa der rek wala mu xool say bët rek wala nga jox ko loxo rek mu xam ne yow feebaru sàngam mu ngi ci yow kon xam-xam xam-xam la tudd. Mhm. xel mu rëy nag lu mu rëy rëy rëy rëy rëy munta utu xam-xam suñ borom dafa wax ni ne hal yastawi lazina yaalamuuna wa lazina laa yaalamuuna gis nga xam-xam xel munu ko wuutu xam-xam xam-xam rek la tudd kon ki teg benn bitelam ki teg ñaari bitilam ki teg benn njaqam ki teg fukki njaqam yépp na fekk mu tegu ci xam-xam rek ndax nit itam kenn mënu ko uutu ci xam-xam man su ma tegee suma benn butéel wala benn waaye teg benn bitéelam ma sàmba ñëw ma demba ñëw keneen ñëw mu yëkkati ci benn butéel bi jox waaw yow maa ngi lay posé question lan moo la wax nee la ñi ma ko jox warul leen ko jox un deuxième bi ku la wax ne la lim gis ci kii est-ce que dugul moom la gis ci kee deux est-ce que butéel bi yow benn sunguf nga gis mais mën na composé téeméeri sunguf yu bokkul mm-hmm. te benn yooyu mun na faj. Mhm. parce que li tax ma wax loolu euh, sëñ bi mbay mooy ni que euh, des fois sax nga gis ci ay ñoo ne dañ la naan mun naa faj lépp. waaw xam nga xam lépp. Mhm. alxuraan ci boppam moo ko weddi ndax nee na loo xam-xam-xam am na ku la tiim ci xam-xam kon xam lépp man lépp moom. loolu sirku billaahi la sax bokkaale ak yàlla la ndax mhm. loolu mbubbu yàlla la kenn waru koo wax war nga wax ne am na lu ma mën am na lu ma tëlee benn ci man keneen itam noonu keneen noonu su loolu paasee xam-xam xam-xam rek la tudd euh, kiy jël ci benn sunguf di joxe xam nga man jenn jëmm laa yow benn jëmm nga mm-hmm. mais man nga boole matière yu bari mm-hmm. man damay jàngale charia damay jàngale luga arab damay jàngale siira damay jàngale grammaire damay jàngale mantiq damay jàngale balaaxa te benn jëmm laa mm-hmm. kon jenn jëmm la joo xam ne li ñu sol ci biir bari na ku ma gis ne kenn nit la mais kenn nit lu mu mën a boole xeeti xam-xam yi kazalika kon benn bitel war naa mën a boole xeeti garab yu bari ci kaw mu wékku ci xam-xam ci wékku ci xam mm-hmm. euh, kon dañuy daal di euh, jàll ci euh, beneen pàcc ci émission bi donc ñu ngi ko doon wax sànq dañuy wax ci feebar yoo xam ne dañoo sonal askan wi bu njëkk bi ñuy tàmbalee moom mooy ndoxum siti ndoxum siti moom mu sonal ñëpp déjà ndoxum siti dafa nekk mbir moo xam ne kenn xamul exactement parce que tey mun nga ni diabète suukar mun nga ni euh, leneen ak leneen euh, lii mais ndoxum siti doo xam exactement daal lan lan la. waaw fa tabarakallaahu xam nga liñ doon wax léegi rek euh, nee nañu réew mi suñu bàyyi woon kenn ku nekk ca lam xam rek. Mhm. réew mi gën a dox. Mhm. waaye suñuy xañ kenn ku nekk lam mën ak lam xam rek daanaka coow li dafay bari euh, xam nga ndoxum siti ñun saalum saalum ñu ngi koy wax kuli kuli nag moom daf di feebar boo xam ne bu xasee ba jiitu ci nit rek fa tabarakallahu daanaka jàngoro bu ñëw rek di nga am place mm-hmm. euh, man jàng naa ko waaye dama ko dund moo tax xam-xam bi macha allah mën naa wax ne yàlla ni mu ma ci jagleele yëg naa ne jagleel na ma ci mm-hmm. parce que def na ci suma yaram diir bu yàgg mm-hmm. boo xam ne maa ngi dund ak moom di sentir ni may def di sentir ni may def di wàcc fii di def nii moo tax bi ma ko jàngee ba pare dund ko yéeg naa ne yàlla jagleel na ma ci alhamdulilah mm-hmm. fa tabarakallahu siti premièrement bi may njëkkee ci li muy def ci karaw laay commencé kuy gis sa karaw di damm soo diwee muy damm walla bopp bi di am ay heure soo yóbboo faju ndoxum siti mm-hmm. soo gisee itam sa bopp di metti nga dem ci docteur mu xool la na la gisuma sa feebar mm-hmm. demal faju ju ndoxum siti xam nga lu tax mm-hmm. siti bi dafay dugg ci tiwo yi éeg ci kaw muy sidit yi bu duggee foofu nag da koy fàtt bu ko fàttee deret bi bopp bi lim doon soxla ci deret dafay manqué su boobaa da ngay gis ni miir mu dul jeex mu ngi lay dal bopp buy metti mu ngi lay dal bët yuy lëndëm mu ngi la commencé di dal lu tax bopp bi li mu soxla ci deret ji pour mën a doxal ay cëram amatu ko su boobaa rek da nga yëg ne bopp bi commencé na am problème benn ñaar beneen bi ci topp mooy ñi nga xam ne seeni nopp fu ñu toll ñu ngi koy xesen jël bant di juggootu jël donc ginaar di duggootu mhm. ndoxum siti day xesen ni muy xesene nopp noonu lay xese ne yaram am na ñoo xam ne ni egg naag ñoom foo xam ne yaram bi dañ koy xesene xesen ba bu ñu amoon paaka sañ nañuy jël paaka bi di ko xotti seen yaram te duñu ko yëg mhm. te boo ne ndox mooy génn ndox bu weex loolu képp koo xam ne gis nga ko rek boo mhm. yeboo faj ju ndoxum siti am na ci ñoo xam ne nag day togg seen siiñ fan yi rek maa ngi koy waxtaan ak benn malade. dina dem ba ci siiñ. waaw mm-hmm. euh, soxna si dangay jël benn yàpp boo xam ne dafa dafa da yàpp bu ñorul soo fekkee ndox bu tàng nga dugal ko ci bàyyi ko ci muy tàng bàyyi ko ci muy tàng su yàggee nu muy def da koy togg mu nooy day nooy mm-hmm. ndoxum siti dafa am boo xam ne dafa tàng jër mm-hmm. bu doxee ba egg ci sa siiñ mi da koy togg mu nooy nepp su ko defee bëñ yi du dul amati garanti bëñ yi commencé di yànq di yànq maanaam yànq mooy yëngu mhm. da yëngu di yëngatu su yàqee siñ mi ba pare nag ndox mi commencé dugg ci bëñ yi commencé di ko bënn su bënnee nag tubaaba moom est loolu mooy parfois nga gis bëñ yi nga xam ne day mel ni luy am lu ñuul muy mel ni lu koy gas waaw jërëjëf euh, ndoxum siti bu tàng bee dugg foofu bu duggee da koy def comme wal di ko bënn par ndànk di ko bënn par ndànk di ko lekk ci biir di ko lekk ci biir bu demee ba commencé ko lekk ko bënn rek dawal seeti docteur kooku fajum cosaan amatu ci xam-xam fajum cosaan lim mën mooy bi mu tàmbalee ndox mi mu raxasal la ko mu wàcc mhm. siiñ ma dëgër bëñ ba dëgër mettit ba bàyyi mhm. waaye li may wax ñi nga xam ne nii loolu commencé nañ saalum saalum boo déggee ñu ne la borom bopp rek mooy ndoxum siti mi commencé na dugg bëñ yi commencé di xeseen nopp yi bu ko saalum-saalum déggee rek su boobaa fi ndoxum siti mi àgg borom bopp la koy tuddee mm-hmm. su boobaa da nga war a daw nga uti ji njar nga dagg ci tuuti lu tolloog polu baaraam nga raxas ko ba mu set nga yëy ko ndox mi dugg ci bëñ yi nga dindi sàbbit bi nga sànni soo ko defee nopp yi doon xeseen ku may mm-hmm. dégg rek boo ko essayé am jàmm su ko defee boo ko yéeyee rek yaaf bii ñuy wax ci bakkan defe naa tubaab suñu site bi te mu sonal ñu bëri tamit. maa ngi wax ne ku may dégg na essayé ndax man mii yaaf dafa ma sonaloon temps yi ma siti jàppee. Mhm. lool ma daan jóge dëkk ba di dem Kaolack di ko bënn bënnlu te bënn bi dafa metti mhm. benn bi sama tàggu sama waajur ma ne ko dama bëgg a dem bënn sama yaaf mu ne ma yaaf rek ma ne ko waaw mu ne ma jaru ko xam nga mente saalum saalum mente lay wax mente mooy tamaate bu ñor. Mhm. mu ne ma demul ut tamaate bu ñor ma indi ko mu ne ma bët ko ma bëtt ko ndox mi génn ci biir mm-hmm. mu ne ma laalal sa baaraam nga toqal ko ci ma téen laal suma baaraam ci ndoxu tamaate bu ñor bi mm-hmm. toqal ko ci biir rek seconde yu néew ma tisooli mm-hmm. yaaf bi seey ma jël defaat ci beneen bakkan bi yaaf bi seey ëpp na ñaar fukki at ma sumu bënn lu yaaf te yaaf sonnalatuma kon maa ngi laawi biir askan wi képp ku may dégg. am na solo. lii ma wax la seconde yu néew nga nooy bi xawlillaahi wa quwwati yi. Mhm. kon euh, fa tabaarakallaahu ndoxum siti loolu bokk na ci li muy def képp koo xam ne ni itam yaa ngi gis ci sa yaram ay bouton walla ngay gis ay heure ci sa yaram xamal ne ndoxum siti bi léegi dem nag ba fees ci biir. léegi nag génn rek la bëgg il faut nag mu benn turoo bu mu génn. la muy njëkk a def mooy picc boo ko seetaanee mu màgg def taab taab bi bu yàggee foofu def góom góom boobu bu yàggee nag nga gis mu commencé yàqu po bi mhm. su ko defee loolu euh, euh, ñi seen xam-xam màcc ci wàllu der su boobaa ñoom ñoo koy dese ndax seetaan nga ko ba sa der bi commencé yàqu bu ko defee dermatologue yeeg yooyu dermatologue yi ñoo moom wàll boobu mhm. kon ndoxum sitit ndeke dinay dema dema dema dem ba commencé peer di génne ci der bi commencé di ko yàq soo ko gisee nga xam ne boo ookee mu génne ndox rek dawal euh, faju ju ndoxum siti bu yàqee der bi dawal seetu ju docteur su loolu paasee soo gisee sa yax yi di lakk parce que siti dafa am bu sedd am bu tàng am bu mélangé tàng ak sedd muy li ñuy wax almutawasit dafa mm-hmm. digg doomu bu fekkente ni siti bu tàng bi la moom day lakk sa yax foo tollu problème mu yax ngay am yax yi dañuy lakk di lakk di lakk ngay yëg métit bu tar su lakkee yax yi nag nga seetaan dafay commencé di muuxal yax yi muux mooy comme bant soo ko tegoon fii eh, max ñëw di ko bënn ngay seetaan da koy bënn wal yi di ko wal bu yàggee rek day gaaw a dam am na doomu aadama yoo xam ne dañuy jékkee-jékkee rek mën nañuy taxaw sax seeni yax damm ndekee dañoo seetaan ndoxu siti bu tàng bi di lekk yax bi di lekk yax bi di lekk yax bi ba àgg foofu foofu bu fa àggee fajum cosaan bëreetu ci xam-xam dawal nga seeti docteur. Euh, foofu euh, parce que dañuy seetlu des fois nit ki mën na jékki-jékki mu ne par exemple man de ah dama rëq te pour pourtant de wala dama am mu fàccu pourtant fàttaliku ma fu ma defee faux pas wala yooyu kon loolu ndoxum siti la. ndoxum siti la euh, su loolu paasee da ngay gis ñoo xam ne dañuy xëy seen yaram diis gànn mel ni dañu leen dóor ay yet. fekk dooruñu leen ay yet ndoxu siti dafa diis dafa far comme meew bu far fi ñu toll sidit dafa am pax bu xasee ba dugg ci sidit yi nag ba palaase bu baax benn sa deret dutul doxati normal sidit yi day diis gann loo def sonn bari na ñoo xam ne tëlee nañu am na ci ñoo xam ne leneen la xëy na taxul ñoo jog mais am na ci ñoo xam ne ndoxum siti moo leen téye seeni sidit benn fonctionné wutul normal mhm. su ko defee loo def sonn boo doxee ay pas sonn boo dawee tuuti sonn booy kuy sport boo dawee tuuti sonn boo eggee ci étage bi sonn loo def sonn kon su boobaa li nga war a njëkk a def mooy wiide ndoxu siti bi nekk ci sa yaram bi ba mu set nga tuur ko ndox yaram bi oyof tooy mhm. ndax toujours ñaare ñu terete nit mu ni ah macha allah ñun day wax dëgg yàlla oyof neen lool Mhm. fekk ndoxum siti bi moo nekkoon ci yaram bi di diisal yaram bi di diisal cër ndoxum siti dinay def wey wi damm dangay mhm. gis ñoo xam ne seen wey yi day ñuul wala muy damm wala du am deret bi nekk ci sax fekk ndoxum siti day naan deret hmm? bari na ñoo xam ne ndoxum siti naan na seen deret am na benn waaye mu ñëw fii ma di ko jox garabu ndoxum siti mu ne ma man dafa am nit ñoo xam ne dañ ne garabu cosaan yi day yàq deret ma ne ko yan garabu cosaan ma ne ko parce que ñi la wax loolu xamuñu garabu cosaan yëpp suñu la yóbbu ci àll bi nee la garab bi mooy lan xamoo ko amuloo ci xam-xam waaw lu tax yow lu amul xam-xam nga ne kenn amul ci xam-xam mën na leen gis nga am na feebar yoo xam ne ak ngelaw yoo xam ne ñu ngi dugg dereti doomu aadama yi di leen naan képp ku la ne bul jël garabu cosaan mm-hmm. daf laa bëgg rek te dafa am loo xam ne sunu borom moo ci oote wallahu yadow ila daari salaami tey nit ñi danga leen war a wax ne moytu leen di jël garab bu ngeen xamul su ngeen soxlaa garab na ngeen ko xam jëfandikoo ko wala ko xam jox leen ko loolu moo gën a rafet waaye suñ de bàyyi leen garabu cosaan askan wi li ciy dee kenn du xam nu mu toll parce que am na loo xam ne machine boo ko yóbbu ci àdduna mënu koo gis mm-hmm. su boobaa nag bu nekkee ci deretu nit ki di ko naan te garabu cosaan da nga ko mën a jox mu dàq ngelaw loolu di naan deretu nit ki génn wala feebar bi nekk ci deretu nit ki di ko yàq te yow machine mënu koo gis waaye waa ji soo koy conseiller te yàlla rek tax danga ko naan seetal ku xam-xamam màcc ci garabu sëriñ man sax damay wax toujours ma ne leen amuma garabu olof man garabu sëriñ laa am garabu sëriñ mooy lan. Mm. garabu sëriñ mooy koo xam ne xam dafa màcc ci garab bi jàng na ko. xam na ko di ci faj ni nga xamee leneen di ci faj kii noonu la xamee lii di ci faj. lu tax sax ñu naan pajum wolof. waaw xam nga <laughs> ah. wolof moom lépp lu baax. Ah, ah, ne moo ko moom waaye bu njëkkoon ñun suñu magi saalum yi fajum sëriñ leen daan wax. nga xam ne kii xam-xamam màcc na ci lool. mu mën ko lool faj ay nit lool ñépp teg seen bët. kooku mooy boroom xam-xam. kooku nag su boobaa garabu sëriñ la yor mais garabu wolof nag nit waru koo topp d'accord naa ci ñu ne bu leen dem jël garabu olof golof olof dafa bëgg lu yomb dañ naan waaw garabu sàngam de boo ko defee nii rek def ko nii rek mu fajal lii mhm. loolu képp ko am xel war nga ci def attention waaye ñi ko jàng nag xam ko ngir yàlla nañ leen bàyyi ñu def seeni liggéey ndax buñ ko deful rek askan wi danañu loru lool su ma continuer ci ndoxum siti mhm. euh, képp koo gis suufu tànk yi di tànk fu mu toog mel ni ku karamp wala tànk yi di lakk ci suuf mhm. na daw seeti ndoxum siti balaa ngay def dara demal nga raxas ndoxum siti bi ba mu set soo ko defee rek di nga am jàmm ndoxum siti amul foofu day lakk ay bët mu ñuul bari na ñoo xam ne teint bu rafet lañu am bu ndoxum siti bi duggee ci seen deret da koy lakk mun naa la ci jox misaal tey ndoxum siti bu génnoon ci sa kaw der bi nii mhm. bu wéree picc bi fi mu nekkoon day ñuul kooku. Mhm. am na ñoo xam ne dañoo xees man su ma leen gisee rek damay xam ne ñii lëndëm gi nekk ci ñoom ndoxum siti la bu ñu raxasee ndoxu siti bi rek teint bi rafet. Mhm. am na ci ñoo xam ne nii boo xoolee seen kanam day lëndëm fekk meluñ noonu ndoxum siti bi moo leen di lakk surtout nag koo xam ne mu ngi diw. xeesal bi daal xeesal bi. Mhm. maa ngi baaxee képp koo xam ne nii ndoxum siti dafa nekk ci sa yaram. moytul xeesal soo ko boolee dina la lor lool yàq sa yaram ndoxum siti amul foofu dinay ñëw ba seeri nit ki wala mu di xesen awraam bu fekkente ni jigéen la am na ci ñoo xam ne ba ci soccet yi ñuy wax ah, mm-hmm. te dagg bi baaxul ci soccot yi nga gis Eh, am naa fi xale boo xam ne dox gi fii dafa amoon benn picc génn ci rek. Mhm. di génn rek di génn rek di génn rek ba def soccet. Mhm. ma traité ko ba mu tàggoog moom mu ngi fii ci kër gi. di wax ne soccet yi génn ci kanam yi jigéen ñi. Mhm. kooku ndoxum siti moo koy def. soo naanee ndoxum siti bu baax rek waxuma lu ñuy tuddee ndoxum siti. ndax foo gis original rek. am na fo am na foo. waaye soo jëlee garabu ndoxu siti normal soccet yi kese ni dañuy dindeeku bu baax a baax a baax emul foofu jigéen ñi nga xam ne seen kanam day am yu weex mm-hmm. mel ni ràkkel ñu koy wax carte blanche mm-hmm. nañu xam ne ndoxum siti bu dee bi mooy génn foofu tey boo téye woon machine tiga dege di tiga dege di wa di wëndeel di wëndeel lu ñor rek day génn mm-hmm. ndoxum siti bi nga xam ne ni yàgg na ci yaram bi ba ñor mooy génn ci kanami jigéen ñi soo raxasee ci biti bi day desaat ci biir mhm. jàngoro boo xam ne nag mu ngi ci biir raxas mu set nit ki tuur ko ndox rek koy may jàmm leneen loo raxas raxas ci biti mu ngi mel ni taab boo xam ne danga koy fajee ci kaw boo ko fajee ci kaw mu nëbbu itam mu nga ci biir ndoxum siti bi bu màggaatee rek dafay génn kasaalika noonu lay defee ay picc ci ci suufu nit waaw ñu eh, ndoxum siti dafay dafay génn ci suufu nit ki. su ko defee loolu mooy tudd hémorroïde. su ko defee gis nga gis nga ko nii. Mhm. kii fu sori la nekk. fu ñu amoon bu ñu amoon tele ñu gis. image yi ñu gis image yi gis nga kii te dëkki nit ñu xonq ñi la nekk. ma traité ko ba mu wér macha allah bu jamono laajoon ngeen jokkoo moom ci numéro laaj ko mu ne leen waaw waaw dafa jóge ci dëkku nit ñu xonq ñi tubaab yi ñëw senegal di traité wu fii ba wér doo ko dellu kon ndoxum siti dinay ñëw ba def benn picc ci butit bi nit ki di demee toilette di ko fermer su ko defee nit ki day seere rek te seere fu mu amee rek ndigg laa ngi metti mhm. kooku moom ñoo ànd saa su seere amee ndigg ngi métti saa su seere amee boppam ngi métti moo tax man ku sa bopp di métti ñaari balaa dara dama naan xool leen ndax seere wu bu seere bi dindee ko ma ne ko kon dawal kër docteur nga seet leneen buñ gisul xool leneen waaw nga seet leneen kon gis ne seere bu metti ndoxum siti da koy def su ko defee nag seere bu amee rek da ngay gis ne biir day commencé di yuuxu xam tax parce que doomu aadama bu masidam bi di liggéey muy lekk muy naan machines yi di liggéey euh, ni oto amee segment mën a dund nit itam kasaali ñu baal ma ci wax bi damay jàngale. Mhm. su ko defee air bi war di génn ci moom bu génnul rek day gonfale biir bi benn day jooy biir bi air yuuxu air yuuxu am na ñoo xam ne dañ ma naan man damay rus sax bu ma toogee ci mbooloo. Mhm. waaye su fekkente ni yaa ngi koy faj dangay boole nag ndoxum siti bi ak hémorroïde bi. parce que waaw parce que hémorroïde bi bu nekkee mbuus boo xam ne ni mu ngi sol def genre taab ci demu koy toilette wala mu génn soo koy traité da nga koy raxasaale ndoxum siti bi parce que ndoxum siti bi mooy sow hémorroïde bi soo ko joxee hémorroïde kese kese da koy calmer rek il faut nga raxas ndoxum siti bi boole kook luy seeyal piki bi su ko defee rek jàngoro bi mën a wér waaye su loolu amul rek du mën a wér borom tànk yi metti óom ku ñëw jàmbat ma ko dama naan defoo ci benn faux pas wala defaloo benn soog mosoloo ci daanu mu ne ma déedéet ma ne ko fajal ndoxum siti boo fajal ndoxum siti mu wér ndax day wàcc ci fii yax yi dajee nekk foofu di naan liquide bi nga xam ne nii suñu borom moo ko def foofu liquide bu nooy bi nga xam ne mooy tax yax yi du ñu jonjonte waaw mboolem sofe sofe doomu aadama fu mu nekk fa yax ya daje suñu borom def na fa benn liquide boo xam ne boo ko sàgganewul di nga dund ak moom ba màgget liquide boobu mooy tax yax yi bu ñuy jonjante du metti ci nit ki nit ki di daw di sport def lépp te du metti mboolem fa articulation nekk rek ndox moomu mu gaw bu ndoxum siti ñëwee nag day commencé di naan ndox boobu wala mu yàq ko wala mu wàññi doole su ko defee nag bu wàññee doole ji wala mu naan ko ba mu jeex sa articulation yi lu ci yëngu rek nga ne maa ngi bëgg a dee woy sama ndigg li woy sama om bi woy sama tànk yi fépp foo xam ne day lemu rek da ngay yëg ne mettit wu tar moo fay nekk ndax yax yi commencé di jonjante siti dinay dem ba bu fekkee dafa nekk ci ku am yaram yàlla da ko bindee mu am yaram da ngay gis ni siti bi da koy jeexal xam nga nu mu koy jeexalee mm. deret dafa bokk ci liy suuxa doomu aadama ak ndox ndox moo naan mu naan ko deret joo ju sëq soo naanee garabu deret sax pour mu yokk deret da ngay gis ni siti bi day naan deret bi su ko defee nag nit ki day wow koŋ kon booy boo amee ndoxum siti di naan fer fer bi mun nañ jàpp kon njëriñ bi du du bëri waaw du bëri ndax itam fer mën na jariñ koo xam ne nii ndoxum siti nekkul ci yow mais ndoxum siti am na doole façon doole joo xam ne xam nga wal abras képp ko xam ne ni baatu abras ci ni ko alxuraan tërale yonent yàlla isaa wax ko fekk mu lottal euh, docteur yi jamono war ngaa xam ne loola ndaw ndax siti itam attention léeg-léeg dafay rax mhm. dafay am siti yoo xam ne dafay rax lan lay lan lay rax day rax siti day rax seytaane siti day rax rab siti day rax ngelaw léegi nag bu fekkee dangaa am garabi cosaanu kese kese kese kese garab kese kese amoo xam-xamu cosaan boo ko gungee rek bu fekkee siti bi rax na rek doo ci génn mm-hmm. da ngay faj ba sonn doo ci am ndam kon siti dafa nekk loo xam ne wax naa la ndey la comme lëngeen la mel am na lu ñuy wax njargoñ bu xasee ba placé rab wu ñëw rek da këf boole la ci boppam siti noonu la mel gisuloo ñi nga xam ne nii seeni yaram baa ngi nëb ci biir nëpp xam nga nëpp. Mhm. nëpp mooy lu ñor. Mhm. gis nga image yi ma la mhm. xam nga ñi seen yaram yi nëpp na ci biir ndoxum siti bu tàng bi moom lañu am. moo koy lakk noonu. da koy togg ba mu ñor bu ñoree ñuul kooku kooku ci biir dangay ngay jékki gis ne sa buutit yaa buutit yaa ngi ñore nit nag bu demee ba nga xam ne sa buutit yaa ngi ñor. kooku fajum cosaan mënatul ci lu bari. soo demee ba nga xam ne ni ndoxum siti bi dafa egg ci sa res. togg ko ba mu ñor commencé nag di ko yàq kooku yéex nga bu fekkente ni itam dafa egg ci xol bi commencé di ko lekk di ko lekk ndax lam koy njëkk a def mooy togg ko togg ba mu ñor lu ñor day nooy népp commencé di wadd par ndànk par ndànk su ko defee nga gis xol bi itam commencé feebar kon ndoxum siti ni muy nekkee ci der bi ni muy nekkee ci deret ji noonu lay nekkee ci buutit yi di ko togg noonu lay nekkee ci xol bi di ko togg noonu lay nekkee ci res bi di ko togg ndoxum siti dem naa dem a dem ba nga xam ne dina toggu biiru nit ki ba nit ki buy wax sax am benn xeeñ buy génn ci moom da ngay gis mu ne la borosu naa mais gisuma dara. fekk na ndoxum siti bi moo koy def gisuma dara def naa lii lu ma xam gàllax ndekku naa pat naa lépp def naa ko fekk li muy togg xam nga tey soxna si boo xoolee cin mm. buy togg day am benn saloor buy génn benn benn benn benn kii cóolo mm. saalum saalum mooy wax cóolo da ngay gis ne bu commencé togg day am luy génne di xeeñ lépp lu ñuy togg rek bu ñoree day commencé xeeñ kasaali ko ndoxum siti buy togg ci yaramu nit ki nit ki mën na parfum wu ba sonn mais deram day xeeñ mën na borosu ba sonn mais coolo bi génnee ci biir bi mooy génn ci gémmiñ gi su ko defee ku mu jàkkaarloo rek nga wëlbatiku mhm. kon su boobaa la war ca moom bu ëpp loxo na dem ci fajkat mu raxas ko raxas ko ba mu set ki yaram bi góom yi mu def ci biir bi wér xeeñ bi eh, yaram bi doon xeeñ dindeeku encore biir bi doon togg itam cóolo bi doon génn ci gémmiñ gi itam kasaalika da ngay gis borom ndoxu siti sax bu demee toilette ñu baal ma ci wax bi toilette bi dafay dafay ñuul kook boole kook wow koŋ boole kook metti suy génn ndax bul fàtte na ndoxum siti bu jàppee nit ki def ko jàngoro kajoor mooy li ñuy wax hémorroïde hémorroïde su commencé toggu pat bi mbuus mi mbuus mi siti bi dajee picc bi bu ko toggee ba mu ñor ba commencé di génn rek da ngay gis nit ki suufam suuf bi muy demee toilette day am deret mel ni yaa ko rodd ay lañ seet buy dem toilette day metti lool bu demee toilette itam toilette yi day xaw a doy waar lool mm. day am itam couleur bu ñuul kuk kuk kuk lu ko waral mooy ndoxum siti ndoxum siti képp kum jàpp su fekkee da nekk ku ñuul dina la gën a ñuulal soo nekkee ku xees dina la gën a xeesal ndoxum siti bari na koo xam ne sa ndigg mu ngi bañ sidit bu mag bi nga xam ne dafa war a nooy népp deret bi di jàll foofu nga am jàmm ndoxum siti bi bu fa soloo ba yàgg fa da gis ne day way su wayee day mel ni euh, day mel ni weñ gu ñu dugal ci biir sidit gi sidit gi lemu rek problème la. kon te ndoxum siti kon mun nañu ne moom parce que da ngay gis des fois mu génn donc bi ci biir sax bi génnul sax finalement bu ñu déggee li nga wax moo gën a bonati sax. Euh, ndoxum siti bu génnee na borom sant yàlla. Hmm. xam ne mu ngi commencé di peer mais su fekkee dafa nekk ci biir ne tekk xamal ne. yow am na lu yàq sa santé te gisaguloo ko bi nëbb moo gën a garaaw ndax balaa muy génne day fekk yàq na sa biir nëbal say cër yëpp doog a génn ci biti kon ci biir lay commencé mutmar la dafay am euh, saahir am mutmar bi nëbb ci biir day yàq-yàq ba biir bi yàqu mu doog génn ci biti fi muy génnee ci biti nag nga yow ngay doo a comprendre la xew fekk nag yàq na ci biir ba pare kër kay boo tojee biir ba ba pare doog a génn ci biti mm-hmm. xam nga ne yàqu-yàqu ba mat na Euh, ndoxum siti emul foofa su fekkente ni ku bëggoon lekk la mën na la jàpp def la jàngoro kajoor ba yow sa lekk dutul demee ti noonu ndax biir boo xam ne loo lekk du res biir boo xam ne ni loo lekk mu ne fa gucc parce que da ngaa seere problème digestion yeeg yooyu noonu jeex na kooku munoo lekk moo tax maa ngi conseillé képp koo xam ne nii danga am problème mu biir hémorroïde balaa ngay lekk lu mel ni pat demal nga jël fir wi nga jëfandikoo ko ba pare doo a jël pat boobu teg ko ci kaw soo ko defee ni la doon sonalee dutul la ko sonalee. mi lekk nag est-ce que du ko yokk kon. mburu day dugg ci pat. Mhm. ceeb day dugg ci pat. fa tabarka laaw man dama mos a am euh, estomac bu metti mhm. estomac bi ndekkee sama ndoxum siti mu bari fi ma doon jàngee ci Saalum. ndoxum siti dafa ma jàppoon ba nga xam ne dox dem toolee dafa may def problème bi sama ndoxum siti wéree laa doo ko xam ne ndoxum siti ndeke tànk yi nii la koy def ndax dama ko dund mhm. euh, dafa ma jàppoon jamono booba ba def ma estomac su ma lekkee lu weex lu forox lu safkaane damay am problème waaye ndoxum siti bi bi mu setee ci man la estomac ba demaale te li ma xamal na ma estomac la eh, dama dem ci benn fajukaayu tubaab bi ma demee ma ne ko xoolal ma suma yaram mu xoolal ma suma yaram bindal ma garab bi ma demee di jand garab yi comme man am suma xam-xam màcc na ci faj waaye boobu commencé gu ma faj ma ne ko soxna si lan moo ma daal mu ne ma danga am estomac moo tax ñu bindal la garab yi ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko waa baax ma dem dëkk ba bi ma demee dëkk ba jël ay garab ci àll bi faju ba sama ndoxum siti dindeeku yóbbaale estomac ba fekk jàngoon naa ne ndoxum siti dinay dem ba def estomac waaye li ñuy wax rek lay sal xabaru kala iyaan yooyu di gis bokkul ci bi ma ko dundee rek laa xam li xew kon ndoxum siti nekk na loo xam ne fa tabarakallahu euh, mën naa lawa lawa lawa lawa law ba yàqal nit ki sax am doom muy ku góor muy ku jigéen ndax bu fekkee bu tàng bi nga yor mu nekk ci sa buutitu njurukaay saa suy luy meññeent doom ñëwee rek da koy seyal ruyal ko mu wàccaat ci biti su fekkente ni e, ëmb nga sax dem ba ci kanam ndoxum siti mun na ko yàq e, ñëw am doole ci kaw ëmb bi mun na yàq ëmb bi am na ci ñoo xam ne nii bu ñuy gis mbaax muy metti lool biir ba di metti lool wala muy dagget daggetee wala mu tëju ngay toog ay weer du ñëw ndoxum siti bi la ndoxum siti day mbaal deret di ko naan kon ndoxum siti moom euh, maara day taali ndax fépp la nekkoon euh, euh, ndoxum siti ñun suñu magi saalum yi dañoo ragaloon kuli képp kuy saalum saalum boo déggee ma ni kuli rek da ngay comprendre magi saalum yi dañoo ragal kuli ndax xam nañ ne képp ku ma nekk ci yow yow moom tàggoo nga ak wér tey boo jàmbatee fii suba di nga jàmbat fële benn képp koo xam ne nii waaye saan dafa nekk ci yow dañuy tiit lool ci yow sooy góor walla ngay jigéen ndax mën na la yàqal am doom kon ñoom lii di kuli lii di saan dañ ko bàyyi woon xel lool lool moo tax da gis mag moo xam ne dina dund téeméeri at ak lu topp feebar ba koy yóbbu àlaxira moo koy tëral moo tax ñiy wax naan moytu leen garabu wolof garabu wolof dëgg la wolof bu ci sa xam-xam màccul moom sa garab manees na ko moytu waaye ne wolof bu ci xam-xama màcc moom wax dëgg yàlla ñépp la war a euh, taataan si xam-xam pour yokk seen wér ndax xel nanguwul nga dëkk nit lu mat téeméeri at mu ne la man dey feebar ma suma daane nga ne ko waaw looy jëfandikoo mu ne waaw man de nangam ak nangam lay jëfandikoo garabu cosaan wax dëgg fa yàlla nag su boobaa yow def na ci yow ngëm goo xam ne fa tabaarakallaahu neexula dindi ci yow te ngëm dafa sori ci nit nit ki am na lu muy gëm soo ko ne bul <coughs> léeg-léeg ngay dem ci benn palaas sax nit na la man de damaa demoon ci jaay kotu garab bi mu jaay ma rene sàngam mu ñëw xooj ko nit ñi boo leen ne bu leen dem ci ñi seen xam-xam màcc sax ñoom ñu dem di defal seen bopp. Mm-hmm. kon nga xam ne war nañ leen di dimbali ne leen dee leen dem ci seen xam màcc waaye soo leen ko bàyyiloo sax yàlla xiir leen ñu di ko defal seen bopp kon. loolu nekkoon na loo xam ne magi Saalum dañ koo ragaloon lool lool ba tax na fu ñu tolluwaan di dugg ci àll bi ut ay garab yoo xam ne dina leen aar ci ndoxum siti ku ko am mu fajal la ko mu aar leen ci ëmërit ku ko am mu faj la mu aar leen ci saan man euh, bi ma xamee bi ma xamee saan li muy def nit ci laa commencé garab yi muy uti saa su muy uti rek dama ci boole garabu saan ndax xale yi sax daf leen di laxasoo laxasoo laxasoo laxasoo laxasoo ba nga xam ne xale bi un un rek lay nekk day day day laxasu ci butit yi dugg ci biir butit yi laxasu ci kaw xale bi feebaru biir rek lay dëkkee fu mu manti nekk kon soxna si ndoxum si di daal ku ci bëgg a mucc nay boo ko amee moytul jën bu ñuul mhm. moytul gerte kemb moytul soow képp koo xam ne nii nag moom am nga ko demal faju ji ko te boole ko daw yooyu ma wax la am na solo hémorroïde képp ku ko am moytul patu patu pat patu guddi patu guddi waaw bu dee ni suba la nga xam ne da ngay doxantu ji tuuti te nañ di bari lu ñu naan ndox mhm. soo naanee ndox doxantu lu sori su boobaa sax yow bokkuloo ki lekk tëdd parce que boo gisee ma ne guddi gi ñu bari guddi dañu lekk tëdd tey nag soo lekkee pat am hémorroïde tëdd ak moom wax dëgg yàlla ni mu lay sonnalee bokkuloo ki nga xam ne bu xëyoon lekk pat itam day doxantu ji. day dem doxantu ji yëngal yaramam kon bokk na ci itam liy dimbali borom ndoxum siti itam sport sport. Mhm. ndax ndoxum siti booy sport du la yeb hémorroïde booy sport du la yeb waaye ku dëkkee toog benn place lu mel ni chauffeur si ñu mel ni tailleur yi nga xam ne dañuy toog benn place rek mhm. su ko defee ndoxum siti bi wàcc ci suuf day ko gaaw a def picc ci suuf. da koy gaaw a def gaaw la def ndigg gaaw la def seere te képp koo xam ne nii am nga problème mu digg rek xamal ne wàññeeku la nga kàttan loolu il faut nit ñi teel ko xam soxna si. Mm-hmm. Euh, ci li nga xam ne moom moo jëm kon euh, Cheikh Tidiane euh, mbay ci wàllub faj mi traitement bi tey ji yow par exemple ku am ndoxu siti Euh, yan garab nga koy faje reen sunguf wala wala ça dépend ci nit ki aussi durée traitement yi jërëjëf euh, laaj nga ñaar yu am solo mhm. muy diire bi mooy li ma koy faje xam nga ki ñëwagul mënuma ko wax ne ko nangam laa lay faje mhm. mënuma ko wax na ko li ma fajee woon diw laa lay faje mhm. wax naa la boroom xam-xam soo ñëwee danga koy bàyyee xam-xamam tey bu fekkee xam-xam bi dafa ma ni kii jox ko ren ren laa koy jox su ma ne jox ko ndox ndox laa koy jox su ma ne jox ko sunguf sunguf laa koy jox su ne ma booleel ren ak xob ak sunguf ak leneen ma boole yëpp jox ko mm-hmm. kon da ngay gis ne boroom xam-xam bi faj xam-xam moo ko naan defal nii mu def nii defal lii mu def lii jaaral fii mu jaar fii bul def loolu mu ne du ko def mm-hmm. kon boroom xam-xam xam-xamam rek lay topp kooku mooy benn tontu bi ñaareelu tontu bi diire bi ça dépend ci diire feebar bi ci nit ki parce que feebar bi mënul def ci moom un mois mu yem ak ki mu def ci moom un an ki mu am un an bokkut ak ki mu def ci moom cinq ba dix ans kon traitement yi ça dépend ci yàggaayu jàngoro bi. am na ci ñoo xam ne seen feebar diir bu gàtt la def ci ñoom mën nañu jël benn rendez-vous dix jours sax balaa deuxième rendez bi ñu ne la wér na. Mm-hmm. am na ñoo xam ne ni dinañ def deux mois nee la wér na. am na ñuy def trois mois nee la wér na. am na ñoo xam ne mun nañuy dem sax ba un ngay xuuf par par ndànk par ndànk par moo tax toujours damay wax malade yi ma ne leen gis nga ku ñëw ci borom xam-xam di faju si fajkat di faju si yow li nga yëg ak li muy dindi ci yow sax mën naa bañ a doon benn mais amul benn borom xam-xam boo xam ne di nga yëkkati garab jox ko nit te amul benn effet bu mu def ci moom kanaan nga bañ ko xam parce que tey su fekkee malaat bi dafa ñëw nga dawal sa xam-xam ci moom sa xam-xam ne la kii de mu ngi jàmbat nangam mais nangam ak nangam ak nangam ak nangam mu ngi ci moom mais nangam ak nangam boobu moo gën a garaaw sax li muy jàmbat. Mm. mais jàngoro bi gën a tar boobu nga koy njakkeel mais moom du xam sax li xew su ko defee boo commencé foofa nag saa su ñëwee ne la ah tànk bi de ba tey mu ngi metti da ngay noppi rek bàyyi ko ci biir. su yàkkamtee dangay dégg mu ne la ma tànk bi ma doon faju si ba léegi mu ngi metti fekk yow yaa nga commencé ca bopp ba di ratta par ndànk di par ndànk di ratta par balaa ngay egsi ci tànk bi mu ne tànk bi ba léegi mu ngi metti xaaral ma tuxuwaat kooku mën na wër ba sonn diir bi nga doon tereti nit ñi ñu wér moom du ci mën a wéree parce que dafa xat te damay wax toujours nit ñi ma ne leen faju en tànk que jullit jaamu yàlla la te amul kenn ku sun borom wax ne ko jaamuma yàlla benn fan wala ñaari fan wala ñetti fan sun borom daf la ne waabud rabbaka xataa yaatiyakal yaqiin yow da nga feebar boo doon wër fajkati cosaan yépp wala ngay wër docteur yépp yow fajoo la war fajul rek te maa ngi ñaanal ñi feebar ñu wér mais feebar ak dee jotewuñ dara feebar mënul rey kenn nit ki da feebar tombeek sa dat jot. <laughs> mu yóbbaale la. mu yóbbaale la ñu ne alors ko feebar sàngam moo ko rey no feebar du rey ndax feebar suñ borom moo ko bind wàcce ko ci àdduna wutal ko jëmm doomu aadama yi ak mbindeef fii dëkkuwaay feebar boo gis rek dañ ko ne demal dëkk ci dibu sàngam temps bu toll nii su ñëwee war diire ci yow trois mois. feek trois mois yi matul foo dem itam day wàññeeku rek fa nga dem itam boo fa toogee ba trois mois yi di mat nga wér mais feebar laa bu dem mu dëkk ci jëmm jëmm jëm dëkk itam dëkk la faju rek dëkk la faju diir bi mu war a def ci yow kum tombeel nga jël ay garabam rek foofu ngay wéree kon damay wax toujours ma ne fajkat sabablu ak topp xam-xamam jël ci garabam joxe teg ko ci xam-xam loolu lañ ko sant waaye nag en tant que ki gëm yàlla moom xam na ni sum boroom mooy wéral mm-hmm. eh, dama mos a am benn malaat ma am fu ma ko yóbbu man suma xam-xam màccul ci yax bu am problème mm-hmm. suma malaat bi def faux pas yax bi fell mm-hmm. ma am fu ma ko yóbbu kooku di ko faj nee ma waaw foo toogoon bu heure bi tardé nangam nangam ma ne ko hey mu ma ne ko fajal ma kiita noppi ma ne ko yow fajal rek lañ la sant waaye man mii indi ko gëm naa ne yàlla ay wéral ndax jullit la ma ne ko fajal sa faj rek da noppi kon faj fajkat li mën mooy faj teg ko ci xam-xam kon nga gis ne faju noonu la kii un mois kii deux mois kii trois mois kii un an kii mën naa dem sax deux cent di faju rek noonu la traitement yi di demee mm-hmm. euh, li des ci émission bi daanaka dama naan émission bi jeex na Euh, émission bi jeex na donc ñu may la rek nga tàggatoo ak mbokki auditeurs yi waxtaan bi amoon na solo lool daanaka ndoxum siti bi sax temps bi yëpp ci la dem mais incha allah hémorroïde bi boos nañ ko de xuusuñ ko comme niñ ko bëggee woon mais xam naa incha allah yeneen i jotaay ñu gën ci xuus ndax ndoxum siti moom moo yaatu yaatu boobu. <laughs> Euh, li may tàggatoo mooy sant waa réew mi FM surtout kilifa gi Seydi Mbagnick Diop di sant bu baax di leen bégalee waxu yeneenti bi mu wax ne addaalu alal xayri ka faa'ilihi ki xamul fu muy fajoo ki xamul li ko dal lan la ak li ko dal fum koy traité ngeen dimbale ko ba trouver ko solution boo xam ne xelam mën na ci dal wala mën na ci fajoo wér yonent bi nee na kooku bu wéree yéen yéen a ko faj ka ko faj tiyaaba bu mu am yow mi ko tegtal ba mu mën a wér wala nga dalal xelam am nga tiyaaba boobu kon loolu lay tàggatoo di wax ñi feebar ne bu kenn découragé faju jaamu yàlla la te suñ borom nee na jaamul yàlla jaamul yàlla ba feebar bi wér wala jaamul yàlla jaamul yàlla ba nga wuy si ma ma gërëm la loolu rek mooy mbiru feebar ñu ngi sant réew mi FM soxna si. ñu lay sant bu baax a baax di la gërëm euh, Cheikh Tidiane euh, mbay te ñu amoon mbégte bu baax a baax di ànd ak yow ci suñu émission SOS santé waxtaan bi amoon na solo lool euh, tey tamit feebar la boo xam ne kenn mënu ci wax ba jeex waaye je pense que ne tey jii wax nga ñu ci loo xamante ne vraiment. ay xam-xam la yu ñu mën a jàpp waaye tamit laayee nga ñu biir ay solution yoo xam ne nit ki bu ko defee mën na muslu daal ñu lay jaajëfal bu baax a baax euh, di euh, fàttali ni yaa ngi bokk ci association bi nga xam ne moom mooy association des praticien du département de Nioro du RIP ANT di la jaajëfal bu baax a baax euh, may la rek nga nga nga tëj. <laughs> waaw jërëjëf ma ci profito di nuyu ñi ma bokkal association ANT bi yëpp surtout suñu président monsieur Ndiaye. ak mboolem ñi tënku ci association bi ma bokk ak ñoom Saloum maa ngi leen di ñaan yàlla doole barkeel seen xam-xam ndax ñu ci nekk yëpp ndaanaan leen. Mm-hmm. jàpp naa ne li ma xam mboolem ku ci nekk rek xam nga lu ñu toll wala lu ko ëpp kon maa ngi ñaan ñaanal ñëpp jàmm di ñaan ki réew mi jàmm. ak naataange suñu kilifa diini yi kilifa aada yëpp yàlla may na leen jàmm tamay ñu ko. salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf kon Cheikh Tidiane Mbaye kon mbokk dañuy euh, tàggatoog yéen fii di leen jaajëfal bu baax a baax si déglu bi euh, kon euh, ajuma june la ñuy ànd ak yéen ci seen émission SOS santé di ci waxtaan lépp lu ñeel wàllu wérgu yaram 18h 19h Rewmi FM 97.5 Ouleymatou Diallo nekkoon ci kàddu gi ànd ak ceeg mbégte jori ngeen jëf. Thank you.